monsieur Fane Abdoulaye Fane ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ñu ngi lay di sant di leen gërëm. Euh, ci li ngeen ñu invité ci mbirum école bi. nga jiite Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal dooree ak li nga xam ne jamono ji euh, mooy moo waral coow muy euh, ñu ne lubbite école gi ñu dëgmal dinañu defar ay tissu wala sax ay tenue yi nga xam ne artisan yi nekk ci mim réew ñoo koy hmm. defar. ba tey ba fii mbir yi baax na. Hmm. waaye li ci li ci ñuul mooy dix milliards yi ñu wax ne moom la <laughs> ñuy jël dugal ko ci euh, confectionner ay tenues jox ko ndaw yi ñuy jàngi tey jii nan nga apprécier euh, loolu ñu jàpp ne projet la bi nga xam ne coow li déjà jur jour euh, maanaam mu ngi fi. dëgg la parce que comme ni nga ko waxee defe naa ne loolu mbir mi bañ ko décider depuis daaw depuis weer yi passé la. benn daje bu doon def ci wàllu xëyu xëyu ndaw yi. ci le président de la République jëlee décision ne dinañ jël ci euh, lu leer mhm. ba ñuy jël décision boobu ñun ko mhm. dañoo koy déggandoo ko comme sénégalais yëpp mhm. te sa doom wax dëgg yàlla war nga laaj xalaatu ki nga xam ne moom mooy waajur actuellement dafa mel ni mbir mi mu ngi commencé di law nañ ne sax am na ay inspection yoo xam ne dañ leen laaj ñoom boo moytul ñoom ñooy exécuter affaire bi ñun nag li ñu gis moom mooy li nga xam ne lii moom mooy priorité du ci wàllu colinu xale yi. Hmm. parce que école yu bari am nañu seen conseil de gestion yi ak seen comité de gestion yi nu ñuy xale ba te di sol tenue ñëpp nañ ko gis ci mbedd mi léegi loolu bu fekkee ne jël nañ ko dugal ko ci école bi. parce que hmm. ñun xam nañ ne mbir mi euh, région yi surtout ci gox sol yi am na école yoo xam ne amuñu daanuwaay amuñu euh, clôture mur hmm. de clôture ñenn ñi ay mbaar la abri provisoire. defe naa ne ak ba pare li nga xam ne lañuy jàngale mooy mën naa créer ay règle ak ñoom seen. Mm-hmm. defe naa ne bu fekkee ñu euh, mm-hmm. ba ñetti at mu dal. te ay dix milliards nag dafa du lu tuuti. te mm-hmm. tey boo ko tabaxoon ay loo xam ne dina yàgg yàgg ba ak euh, vraiment bu euh, gis ko teg ci suñu baaraam. leneen ni nag moom mooy. bu fekkee ne ba fi mu ne nii ñoom jël nañ décision bi c'est irrévocable man ñu dellu ginnaaw. bu fekkee ne dañu koy defit nañ kuréel bi nga xam ne lii moom mooy saytu mbir mi. na mhm. tënu yi seet sélectionné ñi nga xam ne ñoo koy ñëw. Mhm. nañ fexe ba bu ñu di parce que ñun xam ci dëkk dëkk te dañuy dégg yu bari yoo xam ne am na ñuy demee ñu dal di kay jox ay kii yu mag ñu dal di dem jéggaane ko bitim réew ñëw tasaare ko réew mi am nañu ay ñëwkat yu bari yu nekk ci réew mi. Mhm. gox gox nekk sa zone ñu daal lay jox part de marché. bi hmm. nga xam ne ñaw boo xam ne bii ñaw boobu la fii mën a trop dara day am rek masque sax demoon nañ ba mu diggi mbir mi dal di jël ku nekk dal di ñëw bëgg a jël dal di koy def sa sa sa sa daal euh, moom la ñuy euh, demandé. dinañ ah. ko rek alaamee fépp nag. ba lépp loo xam dañ koy def. Mhm. mu dal di leer naññ bu ko defee ñëpp xam ne bii milliards yi fii la jaaree mu am traçabilité bu leer ko. Mhm. ñun lu ñu jaaxal monsieur Fane mooy euh, lan moo war a bees ba état bëgg a jël xaalis dugal ko ci tenue yi alors que tey jii du li nga xam ne lu bees la Sénégal gis nañ ko fi. Mhm. am na ay écoles yi nga xam ne ba tey ci tenue lañ leen xamee. parents d'élèves yi ñoo koy joxe ca inscription ba alors lan mooy euh, pertinence bi. ñàkk sa pertinence kay mënul passé nga dal di xëy rek dal jël décision te te te demandé woo kenn en tout cas ñun dañu bëgg a leer ne ñun ak société civile bi de manière générale muy ay COSYDEP mhm. ak syndicat d'enseignants yeeg yëpp man leer na ma ne amul kenn kuñ ci laaj lii donc a taxawee mhm. da a laaj mhm. euh, ñun laaju ñu xëy nañu dal ay décision waaye dañu ne bu fekkee ne jël nañu décision yi te décision yi kenn mënatuñ ci dell ginnaaw si ay mm-hmm. décision la mm-hmm. nañu def ba kuréel bi nga xam ne bii moom mooy saytu mbir mi ñu boole ci entité yëpp bu ko defee ñu ñëw seen toxique parce que mën nañu comprendre ay inspecteur ak ay kii di ñëw naan dañuy wax wàllu tenue mm-hmm. te ñooñu je crois que seen rôle moom mooy encadrer jàngalekat yi ba ñu am ay résultat yu doo suñu doomi am ay résultats yu baax waaye mënoo nekk nag euh, encadreur sur le plan pédagogique di di gérer ay marché wu ay tournée yooyu je crois que loolu daal vraiment du seen rôle. ci résultat yooyu la sax atum ren baccalauréat 2021 bi gis nga ci résultat yu njëkk yi donte amaguñu euh, li nga xam ne mooy tendance officielle bi euh, yu njëkk yi daal euh, fu mu nekk nii nee nañu daaw gënoon naa gënoon naa yamamaay gënoon naa voilà dal xel atum ren nga foog ne ci jàngat lan moo waral ñu am résultat yu mel nii waaw li ko indi rek moom mooy daaw bi mbir mi amee defe naa ne structure yëpp ñoom ñoo lëkkaloo hmm. muy ministère euh, ak syndicat yi jàngalekat yi euh, way jur ndongo yëpp ñoom ñoo lëkkaloo dal di ciy waxtaan mm. mettre en place ay dispositifs ba pare jàngalekat yi vraiment euh, dal di fexe ba ministère bi de di de classes yi ñu dal di leen boo ko seetloo daaw ay classes yi ay ñaar fukk ba fanweer maximum ñoo ci daa nekk mm-hmm. ba pare moo am jàngale jàngalin yu bees moom ay canal éducation. Mhm. ay cours en ligne ay WhatsApp. ak aussi professeur yëpp dal di songo songandoo mbir mi. Mhm. ba vraiment résultat yi bi ñu ko seetee ci cappaandaw bi résultat yi baax. mbir mhm. ren li li li indi coow li mooy loolu ñu wax classe di dóom yi muy classe intermédiaire yi. yooyu ña ne woon euh, ñu ne woon CM e e. ñoom def seen examen. mais boo toogee juróom-ñaari weer. Mhm. ba juróom-benn ba juróom-ñaari weer jàngoo. mais am na benn kantam boo xam ne bii peut-être même lu ñu def ba peut-être jéem ko résorber. Mhm. des na des na ba pare jàngale ba ñu doon jàngale daaw ci ay vingt élèves ainsi de suite. Mhm. normes yi ñoom ñoo ñowaat mu maanaam li amoon moom mu ñëwaat ay soixante ay soixante dix ainsi de suite. loolu moo tax euh, résultat yi bettul kenn. kon daal jàppoon jàpp nga ni nii la mënoon nii la mënoon mel. nii la mënoon mel parce que daaw nañu songe mbir ñi lépp dugal ci seen loxo mhm. je crois que euh, taxoon na ba quand même résultat yi baax ren nag dañu dellu dañu delluwaat rek ca nañu nañu doon doxale moom moo indi lii bien que nag ay effort am na grève amul di si profité di remercier syndicalistes yi parce que defuñu grève mhm. waaye teewul nag euh, nii la mënoon demee mais li ñuy wax daal di ko sàkku moom mooy nañu profité ci vacances yi ñu dal di def taxaw seetlu maanaam évaluation seet boole ci waale ci nag xale yi. Mhm. parce que dañu am léegi un collectif national des gouvernements scolaires. Mhm. seen i mbir la ay matt ñu nañ leen woo ñu daal di toog te dinañu amoon na muy demee sax solution mën a jóge ci ñoom donc euh, nañu seet entité bu ñu toogee nag ñu daal di tam def évaluation pour mën a xam la ñuy projeté pour l' année deux mille vingt deux deux jóge ci digg doom yi dem ci njàng mu kawe mi foofa nag mm. euh, mu am ay étudiants yi nga xam ne gannaaw ay jàmmaarloo yu métti euh, ñu mm-hmm. bokk ci ñi ñu jàpp ne ñoo ko def. daal di mm-hmm. ci euh, jox ay sanctions ñenn ñi mm-hmm. dàq la. dàq gi nag donte at yi bokkul tey ji noo jàngatee li jàngat bi daal mooy acte bi gis nañ ko ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi. nañu hmm. dugg ca saal ya di yàq fii ak yooyu kooku moom wax dëgg yàlla loo xam ne ñi kenn rafetlu ko. Hmm. surtout ay mag a ko def. Hmm. li li ñu gis nag moom mooy ba affaire bi demee ba dal di am. ñu def seen conseil de discipline dal di am ñu ñu dàq. léegi ba indi seen xiifal boobu ñu doon def. Mhm. Euh, ba finalement recteur bi moom moo dem waxtaan ak ñoom ba am nañu yaakaar ne comme que dèjà waxtaan ak ñoom ba ñu moo seen moo doon def am na buntu ubbeeku. Mhm. kon yaakaar la yaakaar la amul dara lu leer ne waaw waaw yaakaar nañu ne buntu man na ubbeeku. ndaxte ñu dem nañ fa euh, samedi bi. Mhm. ajjuma lañu jeexal seen grève de la ah. faim samedi ba dem nañ fa. dem toog ñoom waxtaan ñoom. en tant que parent. Mm-hmm. ne leen nag lu mel ni rafetlu wuñu ko parce que nag nit bu defee aussi ay jombe da nga koy wax mu leer. Mm-hmm. nangu nañu ko te yaakaar nañ ne bunt war na mën a ubbeeku pour ñu bëgg aussi xam nga ministère euh, université am na ay mécanisme de dialogue social yu fa nekk dañ koy dañ koy fàtte. Mm-hmm. am na médiateur de l'université de l'UCAD. université bu nekk war na am médiateur boo xam ne bii problème yi bu amee am na nu mu demee sax warul yegg ci recteur bi am nay jamono ku ñuy wax euh, professeur Bouba Bouba Diop. Mm-hmm. moom moo doon médiateur de l'UCAD xam na question yu bari yoo xam ne moom moo ko daa réglé. daawul yegg sax ci mais médiateur actuellement am na fa. mais mm-hmm. dañu leen dañ fa nekk nit ñi joxuñu leen ay moyens. fonctionné wuñu de telle sorte que structure mel noonu aussi war leen mën war a jox seen gëdd ca war nga xam ne problème bu amee dinañ ko mën a régler ba mu bañ a yeggi mhm. donc loolu aussi occasion la pour lancer vraiment Euh, autorité yi pour que structure yooyu ñu créé. Mhm. ñu mën leen jox contenu jox leen moyen ñu mën a fonctionner. Mhm. di mën a régler de manière définitive question yu mel nii. tey di monsieur Fane ndax mhm. dàq bi doonul lu diis. Euh, ci euh, ñooñu nga xam ne yàgg na ah. ci banc yi toog ah jàng ñu dem ba ca kaw tey nga jékki-jékki dàq leen noonu. ndax diisul neexul neexul ndaxte keroog même bi ñuy waxtaan. Hmm. gis nañ ni kenn koo xam ne woon mu ngi quatrième année. Hmm. ba ren mu ngi préparé mémoire am. Hmm. moom ci ñu ñu dàq la bokk. xam nga dèjà kooku xoolal nga def ñeenti at ba des lu dul préparé say say say kii de sortie di préparé sa mémoire yooyu ñu dañ la ciy boole. donc euh, ñun li ñuy wax rek moom mooy gis nga booy jiite. bu dara nee tëll neel tekk nga xaar. seet gëstu ba mu xayma ba mu leer la ne ne lii. bés boo génnee décision kenn da ci mm-hmm. waxaat dam ñu nag li ñu seetlu mooy fii léegi dara danaan tëll rek ñu dal di da na damm na mm-hmm. moo dal moyen moom dal euh, moyen enseignement moyen bi lycée kii CM bu aan bi ñu ne ñu dal ñëw daje ba say boole ay gendarme yoo xam ne seen yoon newu ci dañ leen jël décision dañ leen tax ay ay xale yoo xam ne ay quinze ans quatorze ans treize ans la am heureusement que inspectrice bi euh, ci ci mm-hmm. dafa ne nañu ne moom ñoom ñu nga koy lijjanti te dina am yeneen forme de sanction yoo xam ne mën na bañ a yegg ci ci ci ci ay euh, quand même euh, ay ay dax mm-hmm. parce que dem nañu ba sanction nañu ne parents léegi nañu nañu nañu nañu fay fay xale yi ñu dal leen dal di leen ay corvée ci école bi mm-hmm. filmer leen ba ba ba leer la ne ñoom la ñu yàqoon ñëpp dañu defara y a des formes de sanction yoo xam ne yi mën na bañ a yegg ci kii mais xëy rek dal dax nit ki mais kooku c'est candidat même à à éventuelle délinquance Mm-hmm. donc yooyu euh, nañ ci teey li dal euh, école euh, moyen kii bi moyen secondaire bi mm-hmm. aan ak yenn feneen ay mu rek aussi amee nañu teey def seen enquête après bi soo ko ay décision waaw Abdoulaye bi ñu mm-hmm. dama koy wax parce que ba toogee dañ ne woon dañ ay avocat yu ñu choisir tel tel dugg fii wax nañ leen lu neen c'est pas le temps pédagogique parce que tey bu ñu jëlee ay avocat affaire daal di traîner. ñu def dem fii deux ans trois ans. Mhm. diggante bi sax moom dina fekk ñoom seen seen i cartouche jeex. Mhm. ñu génn école. donc nañu tey bu ñu dugg ci ay ay avocat ki ay kenn xamul.